salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit mbokku taalibe eh, ginnaaw buñu leen nuyoo eh, siyaar leen ci bés bu màgg bi eh, di 18 safar ñi ngi am mbégte ak kontante bu rëy a rëy ànd ak site bi nga xamante ni moo di Dakar Vision point net tey nag ñi ngi fii ci Touba tewe màggaluk Serigne Bamba gi nga xamante ni moo ni woon saa bu bés bi ñëwatee nañ ko ko santale suñu borom tey nag ñi ngi ci kër Serigne Bass Mbacke. mu sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ euh, Fallu Mbàkke euh, moom la ñu euh, seet nag tey waaye nag ñi ngi fi fekkit rakam di sëriñ Abo Mbàkke ñu leen di siyaar bu baax a baax Mbàkke ci bës bi di ñaan yàlla saa borom mu guddal seenoo fan lool yàggal leen fi lool sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo siyaar la ci sa bésub maam bi xanaa rek nga sànni ñu tuuti rek ay kàddu ci bës bi nga xamante ni sëriñ Bamba moo ni woon Euh, saa bu ñëwee nañ ko ko santale suñu borom euh, muy 18 safar. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Euh, noo ngi santaat Serigne Touba bu baax cant gu biir xam naa samay kàddu moom mën na cee bañ a bare sëñ Abo mii laa bëgg mu wax li ngeen bëgg mu wax leen mu wax leen ko. man benn baat laa am ci lu may wax muy sant boroom Touba amuma dara lu may wax bëgguma dara soxluwuma dara sëriñ tubaa daal lay sant jeex na moo waxoo nan ko santale boroomam nu nit ñi ngi koy sant ci dimbali gim ñu dimbale ba woo ngir ñu santale ko te duñ ci dara kon noo ngi sant sëriñ tubaa di ko seereel adduna bépp di seereel jaww ji di seereel suuf si di seereel garab yi di seereel mbindeef yëpp yëpp yëpp alamul arwaax ñi ngi seeral ñëpp ne ñi ngi sant borom Tuubaa képp lépp loo xam ne euh, ak bëgg la lu suñu bëgg mën a àgg ak loo xam ne suñu xol àggu ci bëgg xamuñu ko loo xam ne suñu ruux yëg na ko bëgg ko ak lu suñu ruux mënut a yëg lépp noo ngi koy ñoo ngi seeral adduna bépp ne borom Tuubaa defal nañu lépp soxlawuñ dara lu weesu toog fi di ko liggéeyal rek loolu daal la laa bëggoon a wax ba adduna bépp xam ne nun ñu ngi sant Sëriñ tubaa bu wér a wér a wér jàmbatuñ dara jaaxlewuñ jàquñu tiituñu ci dara du zahir du bàtin ñu ngi sant sëriñ Touba bu wér waaw su kon sëñ loolu laa bëggoon adduna bi xam ne foofu la nekk te duñ fi jóg mukk it waaw ñoo ngi sant borom Touba de ñoo ngi sant Serigne Touba ci wàllu gu nit xalaat nag zahir ak bàtin sëñ boo laa bëgg li ngeen bëgg mu waxal leen ko ci Serigne Touba mu wax leen xam naa mënut a wax it lu wees sant moom it moom it day sant rek kon monsieur waa jërëjëf noo ngi sant adduna bépp ci ci biir cantuk suñu tubaab gi la lépp jërëjëf jërëjëf eh, jërëjëf eh, mbokk yi mi ngi noonu Serigne bas eh, mbaki mu Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Fallou Mbacké moom lañu ñëw seet si fii tey ci bésu màggal gi ñi ngi toog nag ak rakam di Serigne Abo Mbacké Serigne Abo ñu ngi lay siyaar Mbacké Bala di la jox sa wàccuwaay ci sa bësu maam bi Euh, xanaa rek euh, ni ko euh, sa mag gi waxee rek nga baaxee rek tey ana lan mooy solos màggal gi ak ab murit nan la war a màggale alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bañu ñu sant yàlla santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax ñu ngi leen di dalal di leen di leen di leen gërëm lool ci ci ci ci lii ngeen def nii lu am solo la wax dëgg yàlla wax ji xam naa ni ko sëñ bi waxee léegi ñu nit duñ génn du sant sëñ Tuubaa waaw ndax bam ñuy digal bis bii ñu def ko dañoo digaloon ne nañ ko sant la yàlla kon leneen luñ def lu dul sant ko rek daanaka euh, mën naa ne amul njëriñ ak dooleen lay doon rek euh, solos bis bi nag daanaka mooy solos solos solos solos ndax ñun amatum lu ñuy soxla woo feneen soxla wuñ keneen ku ñu dolli leneen waaye danañ sukkandiku rek ci ayab suñu borom bi wax la in shakartum la azidannakum moo ko wax ba noppi waaye ñun doyal lañ sëkk Sëriñ Tuubaa ku ko am daanaka amatul leneen looy soxla woo feneen moo tax daanaka euh, sant képp lañu def mën naa ne ba weeru safar tàmbalee ba tey lenn lu sant duñ ko def ndax ginnaaw Cheikhul Khadim ak ak dimension bi mu amee ak kam doon ci suñu borom tabaraka wa taala moom moo nga xam ne amul lenn lu mu a def ba ne nañ ma ko defle lenn ci àdduna lépp loo xam ne di daana ko def mu jëm ci jaamu yàlla men moom képp képp moo ko daan defal boppam kenn daw ko jàppal ci seen ba ba ci sanc Touba bi ba ba muy sanc Touba menn moom moo daan jàppal boppam di di di goral boppam di yettal boppam di di defaral boppam ay mbaar kon loo xam ne daana ko def ci jaamu yàlla moo ko daan defal boppam ba mu demee nag ba bis bii nga xam ne ci la lépp loo xam ne nii nit ku suñ borom bind mas na koo am suñ borom booleel ko loolu lépp tegal ko ca leneen lu mayut keneen nga xam ne ci bis bii la ko jox caabi yooyee ne ko mel na ne bu fekkoon am magasin la tey euh, bisub samedi ci 18 safar gii ba nga xamee ne ci la jógee Mbacke Bari Jolof jëmoon ci tukkeem bu tedd boobee ni ko Cheikh Mamadou Fadil nettalee mën naa ne ci misaal booba la ko sëriñ boobam jox caabi ya ne ko magasin bi nga soxla won de caabi jaa ngi bis nga xamne ne ci bis bobu la am lu am lepp ci addu léegi ginnaw ba nga xamé ne dem na ba ñew ba tok nga xamne ne doon wuti lepp am na lepp nam ko bëgg won ak nako suñu borom bëgg won dara jaasu ci amu ci lenn lu ci manki mbaa len mbaa len lo xamni ñu cay nemer la mu dik nak da fasiyene yéenee sant suñu borom daal di wax kep ko xamni ak njabotam la ne kep ko xamni sama mbik moy sa mbik na nga ma sant la yàlla kon kon loolu loolu loolu maanaam mbir la moo xam ne ni mu réeree la nañ ma sant la yàlla googu suñ tubaa wax moo tax euh, daanaka murit yëpp amul lenn lu ñu am ci sant suñu borom tabaaraka waaw sant sant di sant daa buñ buñ xëyee dañuy sant euh, lépp loo xam ne nii am nañ ko mu rëy ak mu ndaw lu mu mën a doon ci adduna duñu yéem dara duñu xeeb dara lu am nañ ko yeer ba mu jeex takk jubluwuñ ci lenn lu sant rek sant ko dong sant nak man nani moy moy moy moy martaba mi gëna reuy ci yam yalla ndax wa qalilun min ibadiya shakur la suñu borom wax sama jam ñu neew ci sant ñu neew ci sant dimension la bo xamni ni eh, jamu bi yalla pire mo cay ag légui kon buñu suñu tuba woy nañ ko santale kon ñun kon kon kon ñun ñun ndoké ñun waaw légui nak jël jël giñu ñun liñu ñuy wat ci ñuy sant ginaaw ba nga xamee ne mo ñuy sant lo bopam manam jël gim ñu jël ñu ko sëñ bi waxee léegi jël gim ñu jël boole ñu ci boppam ñu nit maanaam biir cant googu ci lañu jëlaat geneen cant goo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy tàmbaliwaatal suñu bopp ginnaaw bu ñu ko defalee lim ñu def loo ba dañuy tàmbaliwaat geneen cant goo xam ne nii dañ koy tofal ci cant googee ngir lim ñu dimbalee ñu ñu ñu ñu mën a bokk ak moom ak cantam waaw kon kon daanaka bis bi lépp daanaka lépp sant la cant la euh, suñ suñ borom di wax rek fadkuruni azkurkum waskuru lii waskuru lii wala takfuru bi euh, kon cant ginnaaw bu mu doonee ndigal suñ borom tabaraka wa taala ba noppi euh, ndigal la loo xam suñ tubaa da koo da koo da koo koo tibbewaat ci ndigal suñ borom santaat ko jàmm kon daana mën naa ne bis bi daal daanaka solo si lépp lépp mooy sant rek te sant moom daanaka mooy jaamu yàlla mooy mooy jaamu mooy jaamu yàlla ndax dañ ko weñ ba alquran sax ci sant sant la tàmbalee mm-hmm. alhamdulilahi rabbil alamin moo ubbi téere bi mm-hmm. kon daanaka dañuy dañuy sant ba ba ba ñuy faatu rek ñun loolu loolu loolu loolu daal euh, bu dee li ci topp yi li aju ci ne ne amurit nu mu nu mu war a euh, màggale wiis bi mm-hmm. weesu ginnaaw boo boo bu ñu waxee li ñu waxoon léegi rek mooy sant rek mooy sant ci sa cër yëpp sant nag buñ ko waxee mooy nit ki jël lim am lépp delloo ko ko ko jox ne ko maa ngi nii ginnaaw suñu Tuubaa dañoo defal lépp bu nee ñu nañ ko sant la léegi ñun dañuy daal di boobu waat liñ am lépp lépp dañ koy boole waat dat ko fi jibbal ne ko ñoo ngi noonu kon kon man naa ne loolu mooy cant gën a rëy ndax balaa nit a sant mooy da nga dañ laa defal dara kala defal dara boo jugee di ko delloo njukkal ne ko ma defal yëg naa loolu kon kon daanaka noonu mooy màggal euh, ba ba tax na lépp loo xam ne nii wuute naag lu soreeg bëggug Sëriñ Tuubaa ci bis bi mën naa ne daanaka du dañ koy soreel màggal kon ku ñëw ci dëkk bi xor ma yi nga xam ne mooy xormay dëkk bi ak ma yi nga xam ne mooy xormay Sëriñ Tuubaa weesu wut xormay yàlla ak xormay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese te wa man yuazim xurumatillahi fa huwa la lahu inda rabbi képp koo xam ne nii orma yi nga li nga xam ne suñ borom da koo xormaal boo ko ormaalee loola lu mën a doon moo gën ci yow kon kon kon dal fexe ba xam lan mooy bëggug suñ Tuubaa nga nekk ci ginnaaw boo xamee ne jël na suñ lépp jébbal ko ko ba noppi muy sant gi dañuy fexe ba li nga xam ne moom la sëriñ bi digal ñu nekk ca te bañ a gestu dara te bañ koo def rek mu yem ci bis bi nag ndax bisu màggal man naa ne bis la boo xam ne nii ñun ñëpp dañ ci def formation ci lépp dañ ci ci lépp ndax Cheikhul Khadim boo gisee ginnaaw ba nga xamee ne jógee na ci géej gi ba mu ak ak juróom-ñaari at juróom-ñaari at ni mu yàgg tubaab bi lu ne ñu def ko ci këru adduna lu ne lépp loo xam ne ni lu mett la def nañ la li lépp luñ la def ni koy yëgee moom noonu la ko yëgee mbaa nu ko ëpp fuuf waaye maam yëgalu ko bopp yëgalu ko yaram ndax ndax nafaytu bi sukri shikaayata la waxoon na faytu bi shukri ashikayat manam lepp lo xamni ni jambat. day xeetoog njàmbat dama ko jël tek ko feulé jël ak tek ko place kon kon kon kon loolu loolu lu yéme la nga nga nga xamné euh, ginnaw ba juróom-ñaari at yalla bam diké ñepp fokk né foog ne euh, am nu mëna doxalé ndax boba Sénégal ko déggal suñ borom déggal ko ndax weesuwut koo xam ne ni sa yu jele xalimaam sepp ci xalima gi bala bind lam na la bind suñu borom def nako bu yag kon koku suñu borom digal nako te te te sor suñu borom tabaraka taala dañu bëri lolu ma ya'lamu junu rabbika illa huwa te mom cheikhul khadim bu sakk won suñu borom len lo xamni ni lu koy dimbalé ci ci ci ci bu fekkon da tay ngir fayu man na ni aw harafam rek doyu ci taalibe yi ko toppoon ñëpp amoon nañ maanaam pas-pas bu toll ne bu bu leen laajoon seen bakkan ñoom ñëpp tey ñu jox ko ko léegi kon bu ko neexoon tey mu mu woote ne bis boobee ñu ma génne woon kat dama koy def bisu fayu mbaa mu def ko ñi nga xam ne mooy mooy mooy mooy ña toppoon Seydina nañ defoon ci bisam boobee euh, bu dellusee kenn ku nekk nekk ci di gaañ boppam aka lu ne ñu dugg ca ngir naqarlu mm-hmm. waaye moom daa dikk teggi lépp daan ne xaafawtu anil aada i turran jéggal naa ñëpp lu ma waay mas a def ci adduna jéggal na la ko léegi loolu murit bi war na cee jàngate lu lu bëri ngir ne amul lenn ci adduna loo xam ne nii war na koo jaral mu yëkkati eh, yëg-yëgam ngir fayu ak luñ ko mën a def ci adduna ndax suñ borom mi la bind lu ne ñu ngi koy def waaye teewul muñ te mën a fayu nag ko neexee nu ko neex mën a mën a fayonoom kon jikko jooju nga xam ne Serigne Touba da koo donn ko jël suñ borom murit bi war naa fexe ba jikko joojee mu am ca tuut noonu buñ ko defoon Sénégal dana jag lool yi nekk ci dëkk bi maanaam loolu lépp ñu ngi waxaat ci ci ci ci euh, dimension magal gi ni nga xam ne noonu la murit yi nekk ci Touba nga xam ne kenn ku nekk danga nga maanaam li muy xat-xat maa maa ngi gis ku koy bind ku koy bind fan yi naan naan naan lu mat ay ay junniy junni dajaloo ci benn dëkk hôtel amu fa restaurant amu fa amul kenn kuy jaay ndox mbaa leneen luy jaay leneen te ñëpp dañuy lekk ba suur dañuy nelaw ba dañuy nelaw ba yàndoo léegi yëgante boobu nga xam ne moom la murid yi yëgante ñëpp yëgante kenn ku nekk yëg ne sa morom mooy sa bopp te ki leen dajale mooy Cheikhul Khadim nga xam ne mën naa ne Cheikh Mouhamadul Fadal ba muy woote bis bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bu ko jox ginnaaw bu ko joxee ndigal ba mu joxee ndigal ci bis ba noppi Eh, Serigne fallu mo wote wat bis bi ne nañ koy dajalo di defé fi borom bobu yu Senegal gipu rek won senegal gep di dajalo wat bir Touba ndax bo xolé say Touba tay senegal gep fi dajalo kon wa Senegal ci bopam dañu wara fexé ba def magal muy ab université bo xamni par at at mu jot am nañ benn bis bo xamni bisu université bo boo xam ne ñëpp dañuy Touba ngir jang ci su bis bi jalle ñu fassiyene ah, lañ lañ lañ ci bis bi ñu pratique ko ba at mi kon boobaa senegal dana dana dana weesu fii mu nekk fépp waaw te loolu loolu li ñu ko may mooy ñu gëm ñu gëm ni ginau Tuubaa sëñ Tuubaa moo ñu yoral nanggul gii ginnaaw moo ñu ko yoral nag saa yoo xamee ne nangul nañ ko niñ ko nangulee ci bis bi maanaam ñëpp ñëw bàyyi seen yitte nga xam ne senegal Sénégal kenn kenn nekkul fenn ñëpp seen seen xel yi fu waay mën a sam xel sam xel a ngi Tuubaa boo ñëwul loolu loolu dañ ko war dañ ko continuer ci bis ba nangul sëriñ bi ci fas yéene lépp loo xam ne ni am njàngaleem la ñu fas yéene koo def muy suñu idole moom su suñu suñu suñu idole moom moom Cheikhul Khadim kon booba yaakaar naa Sénégal jafe-jafe yii ñu nekk yëpp dana dañ jafe ñu nekk yëpp yëpp dana dañ te loolu amu ci lu may sikk sakk waaw loolu daal la yaakaar ne moom bokk na ci dimension yi nga xam ne magal gi amee na ko kon xam naa ci ci gàttal rek. Mm-hmm. waaw waaw est-ce que euh, euh, tubarkalla Serigne euh, Abo Mbacke ngeen dégg noonu Serigne Abo wax ji am na solo trop Serigne Abo mu Serigne Basirou Mbacke moom Serigne Fallou Mbacke ngeen dégg ni mu ko waxee ci ci ci ci ci ab murit ana nan la war a melokaanoo buy ñëw fii ci Touba ngeen dégg waxtaan wi nga xamante ni waxtaan na ko ci maamam mu nekk lu am solo Mbacke ñu ngi lay ñaanal yàlla sa borom guddal saw fan lool wéral say cër. Euh, xanaa rek euh, euh, li ñuy tàggoo mooy kilifa gi ana lu la sëñ Bamba defal. sant rek loolu amut kenn mënu ko wax ci àdduna hmm? loolu kenn mënu ko wax ci àdduna de amut amut kenn ko mën a wax ci àdduna man man damaa yaakaar ne mbindeef yëpp maa ci gën a sant Serigne Touba maanaam ku yakaar Serigne Touba hmm. ak ku ko yaakaarut ak ku foo mën a ne. Hmm. kuy sant xam baatub sant. ak koo mën a doon ma ne a sant man. ndax man sama jafe-jafe mooy. benn yitte laa am ci àdduna mooy naay bëgg borom Tuubaa rek ba faatu aw beneen yitte barke Cheikhul Khadim leneen lu nit di am lu ne muy zahir muy baatin sant naa ca borom Tuubaa soxlaa lu ma kenn dara sant naa borom Tuubaa ci lépp sama xol bii lu tol ne zarra nekku ci maanaam ci espace bu dul sant borom Tuubaa sant borom Tuubaa daal man mooy sama mooy sama lépp sama objectif bu biir ak bu bit mooy sant borom Tuubaa am naa lépp bëgg na bëgg dara laa soxla du du tay du ëllëg sant naa boroom Touba te damay wéy di sant borom Touba. mi ngi noonu Serigne Bass Mbacke mu Serigne euh, basiiru Mbacke dégg ngeen ko noonu sant Serigne Touba rek euh, Mbacke ana kaddu yu mujjee lan ngay tàggoo askan wi. waaw kadd gu mujj gi weesu wut ñun ñëpp ginnaaw boo xamee ne suñ lépp dañ ko def muy ak cant ñun ñëpp ñu jëlaat suñu bopp dajalewaat suñ bopp joxaat ko Serigne rek waaw saa yoo xamee ne bàyyee nañ suñu bopp Serigne Touba. te fas ko tek suñu kanam def ko muy ki nga xamne moy jambar ji nga xamne la di delluwaat saa yu ñu ko defee rek senegal dana jag waaw lolou dal la la la la la daji te te te te ñaanal ñepp magalu jamm euh di ñaan suñu borom mu indi ñepp delu wat ñepp jamm te lepp lo xamne def nañ ko fi mu nangul lepp mu nangul lepp te fulol ñuko ci barkeb Cheikh Ahmadou Khadim sëriñ Abo Mbacke di rakk ci Serigne euh, Bass Mbacke euh, mu Serigne euh, Bassirou Mbacke moom sëriñ Fallou ñi nag ay Serigne sëriñ Fallou direct lañu ci seen barkeb maam ñu ngi leen di yàlla saa boroom guddal seenu fan wéral seen i cër. dañoo wuute moom dana mhm. jaar man damay man moom day dox ci nit <laughs> <laughs> est-ce que mi ngi noonu Mbacke ñu ngi leen di ñaanal baax a baax yàlla sa borom guddal seen fan eh, yokk leen ba ngeen yëg ko di ñaanal tamit eh, mbokku taalibe yi rawatina ñi nga xamante ni eh, ay kilifa it teew nañ fi yu bari waaw yoo xam ne nii ñëw nañ fi waaw fii ci suñu wet mm-hmm. kii ci sama wet nii. moo nekkoon consul bu Sénégal bi nekkoon Italie ca Milan. moo fa nekkaloon waa waa waa Sénégal gépp moom it topp xeeñt ak jeexitu bëgg borom Tuubaa. Mhm. moo ko indi fii. <clears throat> ñeneen ñi ci wàllam ñëpp it. Mhm. kenn ko bokk na jóge nañ ci gox yu bari yu yu fàccanti koo yu xam ne bokkuñu. ñoom ñëpp ñëw teew fii ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ji. Eh, ñoom it dañuy sant si rek. dañuy dañuy sant si rek. Eh, ndax waaw ndax. Euh, dañuy sant daal sant daal <laughs> daal kon daal mi ngi noonu sant rek kon ñu waxati jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu